نجدد سنته فلا وإني أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته فلا وإني kon mbokk yi loolu moo nekkal cérémonie officielle bi ñu jëlee woon fii fi Touba Mbacké Diop ci gàmmu 2020 gaaw fukk fan ci mois de janvier ginnaaw loolu itam ñu yëkkati ay kàdduy cant ak ngërëm yu bàyyikoo ci sëriñ Alsaan Thiam cant ak ngërëm yi itam li ko sabab mooy mbooleem fami Thiameen bi mu bokkal teew nañu ci bis bi ànd nag tour de famille boo xamante ni dañ koo taxawlan jëme bisu Touba ci magal Touba mbaax gi seigne alsan nee mi ngi sant mbollem mbokk yooyu yu ñu bokal seen taxaway ci bis bi waye seen taxaway ci mbokk gi gëna diggal gëna gëna saxal digënté bi gëna yagal jappo bi barke xaarim mustafa kon lolu moy kaddu yi ñi ngi sant bu baax a baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom yàlla fekkale ñu ko déwéni déwén te ñëpp fekk ko te tal ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mustafa nawaituma yujaddidu sunnatu fala wa amadu lima